waa salaamaaleykum kon mbokk yi ni ngeen koy àndee ñun rek ak waa Touba TV Argentine euh, ñu ngi ànd ak yéen rek di doxal si màggal gi comme niñ ko commencé ak yéen si suba gi noonu lañ koy ànd ak yéen euh, di doxal rek ñu ngi taxaw nag ak ñetti jawriñ yi jawriñ yi nga xam ne mooy jawriñu Tukumaan ak jawriñ ji nga xamante ni seen i ñooy jawriñu Santiago euh, xanaa dañuy daal di dégg suñu micro rek Baye Samba moom mi nga xam ne mooy jawriñu Tukumaan ñu wax ñu daal ñoom naka la ñuy doxalee bis bi. waa asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokki jullit yi ñoo ngi nuyu ñëpp kenn ku nekk ci turam ak santam eh, di leen siyaar te di leen balu àq te di leen baal àq di wax ni bis bi moom eh, nii rek la mën a demee ndax borom bis bi moo ne toll te it dara waralu ko won ci tukkeem ba lu dul sunu njariñ ndax wax na ay bayit yu fasantikoo ci ay eh, xasida yu ko benn bu ci nekk mu say ñaan bis bi ak dellu siwaat ba mu doon tex ak jaamu yàlla yëpp ah, ba tax na li nu am bis bi moo nu ko may kon du ñu def lu dul fonk ko wax dëgg yàlla eh, doom eh, jullit yi ak murit yi ñëpp def nañ ci seen pasteef eh, fas ko yéene taxawee seen kemtalaay kattan ba def ci lu ñu man ak lu ñu mënul ah, fii ci Tukumaan nag ak Santiago nu bokk ko fi di ko fi dundal ñu nag waa Santiago depuis Euh, ay at yu yàgg euh, ba ma fi ñëwagul ba ma fi ñëwee depuis 2015 ba tey maa ngi koy ànd ak ñoom ñu di ko jooxe gën gaa rafeti ni jooxin euh, wax dëgg yàlla am na solo daal te it kawe na sunu njort lool ci nin ko fooge woon yaakaar nay kawe na sunu njort kon ñu delloo la kàddu gi rek nga ba ci kanam ñu dellu si waat mu mel ni Baye Samba comme ni nga ko waxee nee nga depuis 2015 ba léegi ñu ngi koy dundale nii Euh, day it mu mel ni yow bi nga fi ñëw daa am koo fekkoon koo xam ni moom moo ko yoroon yàlla dogal it mu ñëwaat say loxo mhm. ñu jàpp ne booba ba léegi 2015 ndax euh, mbiru Serigne Touba amul tànk ginnaaw tànk kanam rek la am mhm. de chaque jour day am yokkute mu mel ni tey jii ndax euh, gis nga ni tey màggal gi ni ñu koy nar a tey ak ni ñu ko daan dundale ndax am na wuute wala déet waaw wuute gi am na ndax sëriñ bi moo waxan ni waxuruhi ilal jinaani hiidu Eh, sama euh, dund ba àjjana lépp feet la kon nag bis bu ci nekk bu ci ñëw tey mu gàcceel morom ja démb loolu rek mooy wuute bi nde du ci wuuteeg murid yi du ci wuuteeg joxe gi waaye bisu sëriñ bi moo toll loolu bis bu mujj ñëw day gàcceel morom ja loolu mooy wuuteeg bis bi daal waaw. waaw mu mel ni kon euh, dégg nañ kàddu yi rafet na am na solo xanaa dañuy daal di jàll si Serigne Ibrahima Ndiaye rek moom mi nga xamante ne si ni Serigne Ablaye Ndiaye moom mi nga xam ne si jëwriñu Santiago yi la bokk moom tamit. ñu ànd wax dëgg yàlla ak waatu commande ko dundal màggal gu jot ñu koy def mu rafet lool macha allah ndax xam na ni Sénégal gëm jógee moo leen boole ñu bokkaat bokk Serigne Touba de lépp di benn ñëpp bokk bëgg a liggéeyal Serigne Touba ñu bëgg a boole doole ji muy benn ba tax ñoom it ñu bàyyee ko euh, Santiago ànd ak seen doole ak seen xalaat ak seen xol ak seen lépp ñëw fii si Tukumaan pour ànd ko waa Tukumaan ab Ablaye Ndiaye ñu lay dégg micro bi. asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokki julli si mbokki talibé yi maa leen di ñëpp ah, Euh, maa ngi leen di leen ñëpp waaw di sant sëñ Samba Fall mi nga xam ne mooy suñu jëwriñ ndax yoonu murit moom dafa am lu muy doxee mooy kër mag moom maanaam képp ku mag rek yaa yàlla dogal na mooy suñu kilifa ah mooy sëñ Isma moom mooy jëwriñ Santiago man maa nekk man maa bepp moom. Ah, di sant yàlla nag bu baax ndax wax dëgg yàlla comme ni ko sëñ Samba waxee ah, bañ commencé ànd Santiago ak document di taxawee bis bi ñu jëlee ko ci ndigalu sëñ Ibrahima Khalil. ndax daf fi doon ñëw à chaque fois bu ñëwee gis waa Tukumaan ak Sanjago nu ñu booloo mu ne daal su ma sañoon Tukumaan ak Sanjago dañuy boole doon benn bu ko defee lépp lu ñuy defati rek ñu boole ko def ko muy benn te boobu ba wax dëgg yàlla waa Tukumaan ñu ciy ba seen kéem talaay kattan ñu ciy def seen waar nu mu rafete ah comme ni ko sëñ Samb waxee bis bi amuñu bis bu gën a mag mooy bisu Cheikhul Khadim mooy bis bi nga xamante ne ñun murit mooy suñu noom mooy bis bi ñu am suñu liberté mooy bis bi nga xamante ne moom la suñu tubaab daan muy bis bi gën a kawe ci ñun kon bis boobu incha allah fi ñëwee pour feete ko rek lépp loo xam ne jëf nañ ko fi rek ñi ngi ñaan suñu borom mi nga xam ne moom moom lépp te moom rek la suñu tubaab nañ ko ko santal lépp loo xam ne jëf nañ ko fi yàlla nañu ko nangul te ko tab di boole ko ci jaam yi nekk adanti ñëpp bi jaay Seexul Xadim amin amin yaa daal di jubal si sëñ Isma moom tamit ndax eh, comme moom mooy jëwriñu Santiago yow sëriñ Abdoulaye yaa topp si moom xanaa moom tamit dañ koy daal di dékk micro bi rek ba xam moom tamit lan moo si xalaatam waaw asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki jullit bi mbokki taalibe yi ndongo li Baay Faal bi Ismaila di ziar ñëpp di màggal ñëpp ci bis bi muy màggal borom Touba di mooy muy mbégte jaamu yàlla yëpp ci murid yëpp nag xanaa wax ji moom duggul ndax li fi jar a wax yëpp suñu jëwriñ waaye Samba Fall wax na ko ak jëwriñ Ablaye Ndiaye wax dëgg yàlla ba ma fi ñëwee léegi yàggul nag waaye ànd bi moom ñu ànd Santiago ak waa Tucumán wax dëgg yàlla moom rafet na lool dégg naa bi mooy ñaari yoon sax ma fiy dóor ma fiy ñëw ci ci di fekk si màggal fii nii dëgg yàlla taxawaay bi rafet na maanaam ni ñu gàttandoo gan yi rafet na Pastef bi gis na gis gis nañ fi Pastef bu baax a baax Baay Faal ay jàmbaaram xanaa dellu de di sant ci Amadou Bamba rek di jaajëfal maam Cheikh Ibrahima Fall di ñaan lépp lu fi waay def rek daal la ko sëñ bi nangu ful ko def ko ay xéewal def ko ci jaamu yàlla yi ndax moom ina jami xawala wax waaw moom ñëpp la bàyyi ñëpp moom jaam yàlla yi daal la la la la la jub la jubal la la jéem a moom la fi moom la fi moo tax mu ñëw jamono dellu sant rek danoo mënul wax nag waaye dañuy jéem rek ama rek di sant rek di jaajëfal yéen ñi tamit seen liggéey rafet na di leen ñaanal seen télé bii ngeen xam ne moom ngeen initié yàlla suñu borom def ko mu doon télé bi gën a kawe ci kaw ñu ngi jaajëfal ñëpp di jégul baax ci kàddu yi di ziar ñëpp di baalu àq ñëpp di baalu àq ñëpp di ñaan suñu borom boo la ñu jégal defal ñu fekk koy déwén déwén waaw gaa yëpp yokk ci kaw ci kanam ba def lii sa yéene ci bis bi rek waaw ñu ngi jaajëfal ñëpp rek jërë ngeen jëf baax na jërëjëf kàddu yi am na solo mu nekkoon jawriñ ñi diggante Santiago ak Tucumane kon ni leen ko waxee rek ngeen ànd koog ñu démb ba léegi noonu lañuy ñuy continuer di ànd ak yéen ba màggal gi jeex ndax li ko waxee rek mbirum Serigne Touba moom euh, lépp loo si def rek borom moo la koy fayal boppam kon daal dañuy ànd ak si liggéey bu rafet lépp lu fi xew incha allah lu fi tukkee di ngeen ko dégg incha allah. waaw kon ñi ngi ànd ñi ngi taxaw ak Matar Mbengue moom mi nga xam ne moom moo jiite wàllu organisation bi nga xam ne moom mooy bernde yi de ku wax màggal wax bernde ndax euh, sëñ bu mag bi ba ñu wax màggal bernde la si jiitu jàngum xasida jàngum alxuraan de Matar moom mooy yore wàllu mi nga xamante ni si ni moom mooy bernde yi. ànd si ak waa équipe ñu bëggoon koo laaj ba xam moom uh, nan la ko nar a doxalee tey ndax li ñu war a berdeel gan yi tey uh, doy na wala boog dina ëpp wala comme na ko si maagal gi bi na satan rajim sama gars bàyyi incha allah ñëpp di leen bégee waaw lii nga xam ne maagal gi yaa a xam bu soobee sëñ Bamba bëggee na ko defee ñu kawe suñ jot ci kàttanu yàlla ak mbaaxam waaw dinañ ci jéem nag waaw dinañ def ba lu ñëw ci kàttanu yàlla bu soobee yàlla mu mel ni sëñ Matar euh, jàpp nag ni chaque année yow yaay jiite wàllum organisation bi euh, ndax yi jiitu ak yii ak ak bu tey bi ban nga jàpp ni tey moo gën a moom moom daal nga ëpp yaakaar. waaw xam nga maam bis moom bis bu sëñ Tuubaa moom moom moo nekkul ni maam day nekk bis bu ndaw ndax maam bis bu dikk rek maam booba day gën a ala ndaw bi jàpp am na yàq ne bii nii mooy gën a neex yi ay yi passé kon daal jàpp nga ni képp koo xamante si ne ñëw na fi muy nit ku weex di nit ku ñuul jàpp nga ni bu demee bu ñibbee dina yóbbaale mbégte maa la mën a war a am ñoo xam si moom fii jóge nekk murid ba faaw waaw kon baax na jërëjëf sëñ Mata si wax jërëjëf jooju ba léegi yéen ñi ànd ak Touba Argentine TV rek ñi ngi ànd ak yéen rek fii si màggalu 2018 bi euh, ñu koy amale fii si Tukumaan euh, ba tey ñu toog suñu mbokki Tijaan yi de la sëñ Sidi Moxtaar waxoon rek ñoom moom lañ ñëw feddliwaat ko muy lépp benn la ndaxte Alaaji Maalik ak Sëriñ Touba dañuy benn kenn mënut a dem bàyyi morom ji euh, ba tax na tey jii suñu mbokki tijaani wax dëgg yàlla chaque at dañ koy teewe teewin wu rafet euh, rawatina tey jii nag ñu leen bëggoon leen a dékk seen i kàddu ñoom tamit ba xam nan leen dundale màggal gi ndax ñoom tamit boo waxee dañ naan màggal gi kenn gën ñu seeyee kenn ëppale wuñ si ñoo siy gën a sonn sax murid yi koy def kon euh, dañ leen di déglu ñoom tamit ñu sànni si seen kàddu. waaw ah, asalaamaaleykum mbokki jullit yi ñu ngi leen di ziare kenn ku ne si turam ak santam. muy kàddu ay sant ak ngërëm quoi wax dëgg yàlla am sant waa kër Cheikhul Khadim bu baax a baax a baax ndaxte maanaam màggal gi bi mu taxawee ñoom danoo rocceeku ñëpp presque boo dee xool lépp teg tijaan yi jiitu ñu ko euh, jox ñu si cër boo xamante ni wax dëgg yàlla am cër buy wane ne ñoo bokk ndey bokk baay ñoo bokk diina ji ñoo bi loolu dañ siy bu baax a baax a baax si turu daari tijaan bépp ñu ngi si ñu ngi leen si sant di leen gërëm di ñaan yàlla su borom doolu ñuy xéewal te saxal ànd bi ñu ànd fii wax dëgg yàlla ndaxte lépp bi fi nekkee ba léegi loolu rek la gars yi doxal ñu ngi ànd di bokk dem si daara yi bokk ndey bokk baay bu ko am xewee tim noonu lañ koy taxawee comme kasalika bu bu màggal taxawee tim noonu lañ siy ñaan yàlla rek loolu yokku te su borom ñu si ay yu bare bare bare si barki si naa war a nekk ak barki alxuraan ndax góor gi sembal fuuta tuub jolof kàkkanti kànnar tuub loo buur siin pour moo ndóofeen raam loo doomi soxna yi ko Cheikh Ahmed Bamba Khadim Rasoul moo waral lii tey kooku ndeysaan bureau ba a waral lii 84 maraab moo doonoon 84 yi yéen ñetti maraab bu yoo njëkkee dañoo signé ne yàlla du yàlla yonent du yonent l'islam ay gént la ahmadu xam ne bu bàyyee ahmadu xam ne bu leen bàyyee ñëpp dinañ weddi mu ñëw doon quatrième position ba ne ko bindal lu mu bind qul wallaahu ahad allahu samad lam yalid walam yuulad walam yakul lahu kufuwan ahad commandant bi ne ko man waxuma lii de Ahmadou ne ko lii laa wax commandant bi ne ko waxuma lii de Ahmadou defal ko ci rabbantu billahi rabban wa bil islamu diinan wa bi muhammadu rasulillahi nabiyan waaye jërëjëf Serigne Touba waaye maa ngi siyaar ñëpp di bëgg ñëpp di baal ñëpp ak ak ah fi mu toll dañoo nekk ci wàccaayu magal gi rek incha yàlla baax ñu ngi ci daanaka di suñu safar gi ñu ngi ciy màggal gi di ko waajal ak ni ñu ko waajalee daaw ak ni ñu ko waajalee ren bokkut waaye nag wax dëgg yàlla ren moom yaakaar naa fi ñu ci toll ren eh, daaw lu ñu ci toll lu ñu toll ren moo gën kowaa mais ñu sant yàlla bu baax di gërëm ñëpp di siyaar ñëpp waaw ñu ngi ci la ànd ak sama mbokk Baye Fall ak sëñ Libaas dëgg yàlla bi ma jiital ba jox turam joxuñ ma ci dara wax dëgg yàlla sant naa leen gërëm naa leen lool wax dëgg yàlla man moom ndaw laa rek waaye nag lu ñu bëgg rek ba suba bu ngoon rek maa baal ñëpp ak ak macha allah am na solo lool sa njibbu ñu ngi lay siyaare bu baax yow mu mel ni kenn la ci mbindeef yi nga xam ci àdduna danoo war di jàngale war a defaraat seeni jëmm ndax taalibe Cheikh la te saa bu nu wootee 18 safar bokk na ci ñi fi njëkk ak ñi fi mujj wàllu bernde yëpp moo koy jiite di togg xewal di jox nit ñi te mënoon na ko ca bañ a fekk waaye li muy def xam na ko bu baax te xam na nit senegal benn bopp la kenn mënu koo xarñaar kon loolu ñu ngi koy rafetlu bu baax di wax suñu mbokki taaliba yëpp ñu roy ci moom ndax mat na référence loolu lu mat a jàngale lu mat di wone la kon dañuy daaneel suñu kàddu foofu di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullah